ñu ñëwaat ba tey ci seen naafile koor tey ñu ñëw ci gudd euh, fukkeelu guddi gi ak ñett ci naafile yi nga xam ne sëriñ Sonia bu radiyallahu anhu bind na ko ci téere mu di xuraatul ayni tey sëriñ mi ngi wax ne fukkeelu guddi gi ak ñett gi bëgg nañ koo xamee ne da ci naafile mu julli ci ñaari rakka rakka bu ñu nekk mu jàng ci faatiha benn yoon suratul ixlaas yi juróom yoon ñaari rakka bu ñu nekk faatiha benn yoon suratul ixlaas euh, yoon sëriñ bi ba tey mi ngi wax ne képp ko xam ne def na naafila gi te gën jaa rafet aw defin suñ borom dana ko tabaxal juróom-ñaari kër ca aljana te kër gu ci nekk dana am junni néeg néeg bu ci nekk dana am junni lal te lal bu ci nekk dana am soxna su ca nekk te kër yooyu it ci wurus lañ leen di tabaxee mu raxte dool li teg ci ne képp koo xam ne def na koy dana mel ne koo xam ne woor na euh, junni koor waaye julli na junni julli woor na junni woor koor ak